lu ci mel ni euh, ñàgg amaguñu bureau de vote yépp mais ñaari bureau de vote yu ñu am dafa mel ni euh, euh, benn bokk yaakaar moom moo jël raw gàddu gi ak cent vingt 322 voix ñu gis ni mu toftal ci ki nga xam ne mooy ànd liggéey suñu gox mu am cent 142 voix ñu boole si troisième position muy la rénovation Dongoy mu am 32 voix lu ci mel ni ñàgg dew si gis nañu benn bokk yaakaar moom moo jël raw gàddu gi ak 128 voix TOFTOLTI PEP muy de l'espoir et du progrès avec 43 voix Nous sommes lu ci salam, nous 60 voix BENO Bokk deuxième ak 43 voix PLP PLD troisième à 16 voix. Nous hmm. ci aussi PEP mo 198 voix. Nous gis ne benn bokk yaakaar deuxième position à 89 voix. Nous fois ñu gis euh, Sénégal 2035 moom troisième position à 25 voix. fois lu ci mel ni ñàgg pël gis que 164 voix mu jël deuxième bi toftal ci muy def sogo ak 84 voix troisième position nous avons ci ànd Ligue sunu gox 29 voix ñu jeexaleeg ci nga xam ne moom mooy dénégétude solo résultat yi fi am benn bokk yaakaar moom moo jël première position ak 88 voix ñu gis ne dafa sogox moom moo jël deuxième position ak 33 voix ki nga xam ne moom moo jël troisième mooy bunt bi ak 22 voix léegi loolu lañ fi jotagum am comme résultat yi nga xam ne moom lañ jot ci bureau de vote yi nii Ndiaye loolu. est-ce que mën nañu xam euh, ci communauté Tivaouane Peulh Niaga yëpp ñaata centre de vote moom moo fi amoon. waaw ci communauté Tivaouane Peulh ñoo ngi am dix bureaux de vote du centre de vote. tey boo ñëwee fu mel ni école euh, un bu ñàgg. Mhm. Euh, gis nañ ni y a dix bureaux de vote. Mhm. d'après li fi jot a ruusagul nee nañ ñu dix bureaux de vote yëpp yaakaar naa ni neuf yi. Benno Bokk Yaakaar moom moo ko gagné. waaw ci liñ fa jotagum am euh, comme résultat si ñaaga dañ ko ne ci dix vote bureau vote yooyu noonu neuf yëpp benn bokk yaakaar moom moo fa dominé kon nag mën nañ ne xel dal na ci li ci jëm ci wàllu benn bokk yaakaar. Mhm. Euh, loolu mooy li nga xam ni moom moo fi jotagul a wàcc. Mhm. mais euh, ban njàngat nga am ci li nga xamante ni tey moom mooy vote bi. waa selon résultat yi nga xam ne moo fi moo fi ruusandi mën nañ ni ki nga xam ne moo fi nekkoon maire. population bi dañ ko jëlaat tànnaat defaat ko muy maire donc ñu mën a wax que ni donc liggéeyam moom moo satisfait ñi nga xam ñoom ñooy population bi parce que population bi voté nañ ak doole centre boo dem gis nañ ni delloo nañ Benno Bokk Yaakaar buum ca mboy mboy donc mën nañ ne le maire bi fi nekkoon liggéey na góorgóorlu na ñu koy ñaaxaar mu gën a góorgóorlu. Mhm. Euh, man jàngat bi ma ci am mooy c'est la première fois nga gis élection euh, nit ñi génnee nii. waaw surtout nit ñi voté nii tey boo demee centre bu mel ni Tivaouane Peulh. Mhm. Euh, mu am vingt bureaux de vote. Mhm. Euh, centre bi fees del ak ay nit. nit ñi génn massivement voté ji ça veut que nit ñi ñu ngi commencé. Euh, imprégné wu ci li nga xamante ni moom mooy seeni moom mooy seen localité. waa exactement exactement gis nañ ni nit ñi léegi yeewu nañ te ku nekk moo ngi bëgg a voté pour defal goxam voté ki nga xam ne moom mooy le meilleur te population bi wane nañ que ne ki nga xam ne moo fi nekk mooy monsieur le maire.

Euh, ban jàngat nga ñuy defal ci loolu. ba léegi rek euh, li ñu waxoon sànq la ñuy waxaat gis nañ que ni ki nga xam ne moo fi nekk gu moon leader ci monsieur le maire gis nañ ne zone yëpp liggéey na fa ndax lu ci mel ne ñàkku ak ñu am ku mel ne représentant politique bu fa nekk nga gañe ko ci ki nga xam ne moom mooy dëkkam yombul donc euh, on voit bien que ne liggéey na te donc ñu ngi koy félicité li nga xam ne mu ngi ko def aussi. bu baax a baax. Euh, nga ñëw fu mel ni ñàgg ñàgg dix bureau de vote tendance bi dëgëroon na trop parce que itam amoon na leader bu fi nekkoon. waaw surtout. Euh, tey jii itam nga gis population bi eh, génn vraiment voté ji euh, loolu moom bu toogee di di am yëg-yëg ci loolu lan lañ ko mën a ñaax comme quoi que vraiment mu gën a góorgóorlu. waa Ndiaye man si j'étais à la place du maire dama naa instant damay commencé jubilé ndax daf may wóor que ni population yi jox nañ ma bopp daf may wóor que ni population bi dooloon nañ ma te ñoo ngi may sagoo di mooy titro donc ñu koy ñaax rek mu gën a góorgóorlu xam ne ñi nga xam ne voté laat nañ ko dañu am yaakaar ci moom. mais est-ce que jàpp nga ni aussi mbir mi leer na à 100 pour cent parce que ba léegi lii ay résultats provisoires la yu fi wadd. est que jàpp nga ni fi mu toll nii mbir mi leer wa surtout ñu jàpp que ne ay résultats provisoires mais selon résultats yi fi gis aussi dal na xel gëm naa ne le maire bu toggee bu tëddee dina nelaw parce que li fi jot ni nit ni li fi nekk dool na xel dal bu baax a baax ça se voit que ni population bàyyi nañ ci xel ñoo ngi koy euh, ñoo ngi koy aussi ci liggéey bi nga xam ne def na ko fi waaw. surtout hmm. euh, campagne aussi lan nga ñu ci mën wax par rapport ak li nga xamante ni dund nañ ko fi muy ay violence aussi. Hmm. Euh, di une première dans la communauté de Tivaoune parce que ñun yàgg nañ fi nekk di couvrir ay événement euh, di couvrir ay élection mais violence bi am ren mosuñu ko gis. wa wa violence bi mom moom ren bari na torop torop ci campagne yépp té euh, li ko rek mooy ñun ñep dañu bëgg ànd boolandoo defar ku nekk fokk né sa leader moom mo fi man mais tay ji yalla def na wane na ki nga xamné ne moom mooy man parce que c'est le c'est résultat qui qui compte là hum. euh tay lan nga japp ni mom lañuy xaar. ci maire bi nga xamanteni ni mo wara ñew diriger li nga xam mom moy commune wa maire bi nga xam mom mo wara ñew euh nekkat ci euh, pouvoir wala ki nga xam mom mo wara ñew tok ci pouvoir bi ñukoy ñaax rek nekk population bi surtout ta yi ngeen di def sen visite proximité ak ta yi ngeen def sen campagne population yëpp ñaxtu nañ leen jooytu nañ leen li nga xam mom mom moy mooy jangoro donc ak ku fi monta tok rek ñu lay ñaax di la ñaax gën baye xel population bi ngeen xam ne population bi yéen la ñu am pour wax seen seeni jafe-jafe donc tout le temps ngeen leen di bàyyi xel xam nañ ni nit mënul matal lépp njaay ah mais nga jëm da ci am solo ñu xam ne kii au moins mu ngi jëm ko loolu la ñuy xaar ci yéen ngeen jàpp lañu bu ñu atteindre suñu objectif ñu ñëpp. Mhm. Euh, tey looy tëjee lan ngay tëjee ban message ngay lancé. ah. pour le moment ak li ñu fi gisagum d'abord damay féliciter ki nga xam ne moo fi nekk parce que li fi nekk la ñuy wax li ñu jotagum la ñuy wax donc ñu ngi ko kii féliciter bu baax a baax a baax ñu koy ñaan rek ki nga xam ne moom la ñuy yaakaar ne moom moo fi toog mu bàyyi xel bu baax population surtout may répété waat loolu parce que population bi jooytu nañ waat damay ñaan rek képp koo xam ne toog nga fi boo demee ba toog nga jëlaat say vidéo yi nga xam ne ñu ngi la doon def ak promesse yi nga ko doon def ngay toog di xool ko xoolal bu baax comme ça nga mëna a xam lan lan la population di xaar ci exactement hmm. tay ñu gis que ni tendance bi ni muy démé ni lu melni deuxième bi euh, wala première bi sax mu ngi dox ci digënté ki nga xam ne mooy Mouhamed ak ak candidat bi di ci soxop mhm. ñom aussi def nañu effort vraiment euh, yef yi ni muy ni muy ni euh japp nañ ni ñoomit war nañ ci mëna gis seen bop surtout aussi point bu jar a éclaircir la mooy que ki nga xam mom moy le leader Mohamed Faye ak ki nga xam mom moy Sissoko ñu leen di féliciter aussi bu baax parce que c'est la première fois ñu ñu déposer candidat et on voit que ne ñoo ngi tàggle aussi bu baax on voit que ne ñoom pendant ci sen campagne liggéey nañu lutax ñom ñu leen di voter donc ñom aussi ñu leen di féliciter bu baax ñu leen naan aussi bu leen décourager parce que jéxagul li euh, lancement bi la rek li mom ay ay li euh, résultat provisoire donc mhm. lu ne mëna na mhm. donc fi ba suba aussi japp nañ ni résultat yi war na mën a waaw ñu di résultat fi ba aussi suba résultat yi mëna na donc instant bi li nga xam mom lañu la résumer ñetti candidat yi ñoo fi jëlagum raw gàddu gi moy ñi nga xam mom moy benn bokk yaakaar Mouhamed Faye ak Sissoko mën na ni instant ñett ñoom ñoom ñooy xëccoo mairie Tivaouane léegi résultat yi incha allah suba ku bëgg a xam kan moo jël le mairie Tivaouane Peulh on se donne rendez-vous allah sur la Cross TV ak Ndiaye